randonnée bi dañu ko sumb ak suñuy ancien ancien du trésor yàlla may ñu ñu préparer ko ci jàmm def ko ci jàmm e ñaari objectif yi ma fixé woon comité préparatoire bi muy défi wu organisation ak participation ku gis li fi am tey xam ni relever nañ ko parce que li ñu ci jublu woon c'est de rassembler c'est de réunir la grande famille du trésor au-delà des générations tey ku xool ministre d'État ministre de l'économie des finances et du plan Abdoulaye Diop teew na fi ñeneen ak ñeneen parce que ku lim fàtte teew nañ fi ànd ak xale yi dox mais dans la main ak suñuy njaboot ak suñuy xarit xaritu biir ministère de finance parce que ministère de finances benn famille la waa budget ngi fi woon waa plan ngi fi woon waa écono waa impôt ngi fi woon waa douane ngi fi woon ak ñeneen ak ñëpp comité bi lii yëpp bu ñu ko amee satisfaction comité bi la koy santé parce que depuis presque deux mois ñu ngi ciy liggéey manqué wuñu dara lépp li ma leen santoon matale woon nañ ko ba tax randonnée bi tey connaître succès bi mu connaître parce que képp ku jiite kër gu mel ni trésor li ngay bëgg mooy sa njaboot booloo je crois que li étape la et acte la ci suñu politique sociale pour gën a boole la grande famille du trésor je crois que l'objectif de ce jour a été largement atteint ministère de l'environnement daf ñu accompagner parce que dañu jël thème boo xam ni ci la ñu communiquer au delà li ñu wax ci mission trésor thème boobu en perspective COP 27 c'était un thème écologique sur le climat l'environnement parce que suñu mode de vie dañu ko war a ménkaleel aujourd'hui exigence su planète bi ñu bëggoon passer message pour que képp ci ñun ku ñu dégg wala ku bokk ci marché bi à partir de tey ngay développer ay attitude ay posture éco écologique yoo xam ne dana préserver jamono dana préserver addina bi li tax ma wax ko dañuy faral di wax crise Covid ak crise russo-ukrainienne mais dama ci yokk crise climatique ku ne gis na avancée de la mer ku ne gis na les changement climatiques li muy jural rawatina suñu réew yi de sorte que dañu bëggoon communiquer ci loolu pour que kenn ku nekk boo ci jógee nga mën a développer à niveau ak sa environnement wu famille ak say dëkkandoog say mbokk des attitudes éco éco écologiques pour préserver addina bi préserver jaww ji préserver suñu environnement loolu moo doon solo bis bi